problème on naata council of elders yaje ko dammawol probléme o bije sa i naata e molkumande ko munen probléme o te nga sate instead of your advice the pour min satna probléme o e ban they went ahead to lobby for that powers to be vested in them you would be surprised. You would be surprised because Mimo, Mimo the Izuri, Ako, he is going to talk to that committee. Yes. Amafoko Mokili. Bro. anu mokli ne pindi nan anu dol fana ma ta ko jamme nyin kolle na man ke ala okay, ko pro pro pro i will ask you ya, one thing pro no ila mo ila mo man i was in the prc xam na jamme ba haba mu na la jox po nga fane ya si nekka fekk sa jinyo bi mom moy nekka di control control gis nga jamme euh mun na mun na fam comme par exemple nga def non is wrong mun lo am di exit committee party nga ne yow yow de only the council of elders ngay waxal ak chairman mhm. loolu is wrong non non non loolu is wrong no no no no council of elders wolle ya kalamta ko problème be keri you understand because of na july 22nd celebration oketa dolumanta and no particular issue le ni te mam facilitation o keno pour message na mol be se benno aka do yake taye be ala no no bari prof ila so ite la moy lan na ite la moy lan na la moy lan na ila moy may ma may ma No, Buba, you got it Wait, wait. The message was sent to the party, interim party leader. The message was sent to the inter-party leader to inform him. At what time? Watu mina, watu mina ye meeting okay. Porka rally A message was sent. Was the meeting. Eh, you said an organ a plan. But you plan. will you plan? Why will you plan? What are the executive or member And not informing the executive of the plan. you got it wrong. Mimbi je wole nyituko. Jamme na mu bàyyi la yéen ngeen ron park aside la Jammeh cannot turn back we hmm. still want Jammeh to, contest election let, let contest uh, election so uh, Jammeh back is, out of the topic bari ad anoda fonko ko tege moom me yàllon wala mun na flawa bondaati hmm. anu kadi yam na flower dokula ana ka diamu anin drive ka diamu je APRC la track ito be membulo ano diamu anin tel ka diamu okay you go to Birkama area council doli yakale ye bag ye don fana police wala ye bag sama who is going to take the responsibility of what has been damaged that's the point you understand? Buba. Alinga, Alinga, Alinga, Alinga, when it comes no, prof, to our prof, responsibility, let's, let's, let's, let's be serious about this issue. You understand? Min dolo min na ka ben te na eh, eh, ka wan lati ta la. Dolo na, dolo dolo mi. Ya na te la Every time we are not going to just listen to the government, menyana kala, menyana kala, menyana kala, and we are not seeing it. Kulung men eh, ka yes, to yala mbaro tanje ako mbe kulung samal lang ay ako kulung but fuma mena those promises are new are not new promises before those promises there were other promises did they fulfill those promises they have not fulfilled those promises so whatever promises you meant for you we feel like oh, those promises are not going to be fulfilled corruption of funga eliminate ninta corruption okay in this building police for that hanni arta ya, nojjin leɗɗo ta ma friend a put in house arrest a bejo banko la ko dole a bejo na parta na fay ko ta mo kana ñinje ka fo de ñum parti kar bari nga gambe fon nden kewol ila karam jo malle do you know how they draft the budgets andinte ɓe même fo kay kuleɓe kerin kodeyo sen député mema ko kene mema ko kene aɓe député le fo kam aɓe député le fo kam lefa ko ajiona heppiya mema koyno ilamoy don ilamoy tek ilamo nema koy yo a misleading ɓe mo le misleading kene sonna wala yewta ye palaso siga ye diala when it's not yet clean silvo sonko the chairman of Brikama, uh, the former chairman of Brikama Council, my own brother, yes, my own brother, he was a chairman. There was alleged frauds. There were a lot of things a mere longer happened in Brikama Council. So any other debate still for Utala, you want to make it. You, you, have to hold on because already you set a commission, you set a commission against those people. Your commission was set against those people. Your commission was set wala. Dalbe bensu da science ya lamin kamera ya ya ya ya explain Let me tell you something. Say ya murni nam kota kema. They go substance mugi toga gum. Eh. So so ni dem fire fire by the. No. Fire by the. If you house without salary. you are asking this question, why who, no, no, is just, it a, a, a, crime a National Assembly member to come with this idea? Exactly. No, but this is what we are saying. I understand your point that was the argument there. Yeah, argument. Imam Hassan, yeah, even you caught them. Bubaka Memphis, that was the argument of some of the members in the in, in, the problem with the person who is bringing the bill, the person who have there to represent the Gambian people. Go the